asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si jàmm si kër gi su defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak seen ne Omar Tunkara bopp xibaar yi mbokk yi dinañ dem uh, seeti ji Mr um, Bah uh, kaddu yi nga xam ne nag wax na ko ba daal di koy sekk ak Star si li jëm uh, ci wàllum condamné bi nga xam ne nag mu ne gàmmeen si nag defuñ ko ñi nga xam ne ñu ngi ŋàññi amat yenn ci réew mi moom nag jàpp na ne daal political party si ak i tamit ñiy seetu àq yi doomu aadama ci réew Gambia ñooñu nag waxuñu dara taw nag gàmmeen si ñu ngi attaque amat si nag ci réew mi mbokk yi ex protocole bu former président Jammeh moom nag dalal ko si TRRC bi war na foofu ay kàddu jëmale ko si former président bi di wane ne kooku xam ne daal mu ne korégutoon maanaam dafa xaw a nuroo ni ko sagoom parce que nag mu dafay def lu baax mu daal di def leneen xam ne méngoowut ak loola moo daal mu jàpp ne kooku euh, dafa xaw a ni ku xaw a sagoom benn tey mbokk yi dinañ dem tamit euh, dem seddi ji xibaaru bitim réew coronavirus bi nag yeggaat na ci beneen réew gannaaw bu mu amee euh, bu mu dikkee woon foofu la cali di Egypte foofu la sa moo nekk dëkk bu njëkk boo xam ne corona bi nag àggoon na fa fii sa tundu Afrique ba tax na bi yoon daal ñu ne euh, kees bu njëkk bi nag gis nañ ko foofu la cali di réew Algérie Algérie nag seen xel ministre bi maanaam seen jëriñ bi dénk wàllum faj mi kooku nag wane ne daal am na benn jigéen joo xam ne euh, jàngoro bi nag dal na ko waaye ay mbiram nak ñu ngi koy seetu bu baax a baax wante it foofu la ca Burundi lu toll si ñaar fukki nit ak ñaar lañ fa rey si waajtaayu élection si nga xam ne nag ko fay def ndaxte waa Burundi seen élection si nag ñu ngi ko jàppal weeru mai at bi ñu nekk ni le waaye nag président bi ci boppam moom wane na ne du taxaw na ci élection si nekk suñu kanam waaye taxaw na opposition bi fu mu toll nii ñu a rey benn benn na comme ni ko BBC waree la yooyu ak yeneen xibaar dal na si jàmm su ko defee ñu ànd ak yéen ci mbokk yi dal leen si jàmm su defee ñu tàmbale si réew mi rek ñu dem seeti ji Mr Moussa baax di kat si benn euh, buntu jàngukaay bi nekk foofu la ca Bundung di Nusrat Senior Secondary School moom nag wane na ne bettu na bu baax a baax ci political party si nekk ci réew mi ak i tamit civil euh, society organisation si mooy kuréel li nga xam ne dañuy seetu ak yelleefu doomu adama yi ñoom nag si li ñu bañ a dem kàddu yi nga xam ne ñenn si askan bi ñu ngi koy wax di attaque amadiyan yi naka ci réew mi ndax mu ne nag amadiyan yi fan yi daal ñu ngi leen di xeebul leen sewloo ci yenn ci ay wax yi nga xam ne nag ko attaque gars yi waaye nag mu ne political koy dégg waaye nag ngi ko noppee ñu ànd ak Seydou Camara mu ànd si leeral ahmadiyaan yi nekk ci biir réew mi am na ay kàddu yuy bàyyeekoo ci ñenn ci askan yi bokk ci jullit yi di leen songu ci diine bi nga xamante rek moom lañ nekk di jëfandikoo ci biir réew mi jiite loolu sax di Supreme Islamic Council ñoom seeni bopp sax jàpp nañ ne ahmadiya yi waruñ leen a ooyee ay jullit ndaxte duwuñu jullit ci fan yi ñu weesu sax mu am gàmbeen yu bari nga xamante ni jëfandikoo nañ social media bi di songu ahmadiya yi ñenn ñi sax di wax ne dañoo war a dagg seeni baat yi Mr Bah mu bokk ci ahmadiya yi moom it wane na njaaxareem di wane ne daal lii daf ko bett bu baax a baax ndaxte li ko gën a bett sax mooy political parties ak civil society organisation ci nekk ci biir réew mi amul kenn ku jóg pour dàqalu ñaawlu kàddu yi ñu yëkkati jëmale ko ci ahmadiyan yi mu ne moom li mu foog nag mooy bu fekkee ne kàddu yi ñu mel yëkkati nañ ko daal di ko jëmale ci ab kuréel rawatina ahmadiyan yi political parties yi nekk ci biir réew mi ak NGOs si waroon nañoo génn su ko defee ñu daal di dàqalu mbir moomu rawatina nag ci jamono ji nga xamante ne ñenn sax ci askan wi ñu ngi wax ne dañu war a rey ahmadiyan yi nekk ci biir réew mi mu ne pour doon juddub réew mi nag loolu ñëpp a ci am seetuñu si ban diine nga nekk di jaamu Mister Ba continuer ay kàddoom di wane ne ci jamono ji nga xamante ne Gambien si dañoo war a ñëw mànkoo doon benn ñu jàppalante waaye nag loolu fàtte nañ ko lu ñuy def daal mooy di xastante di saagawante di oante ay tur yi nga xamante ne tur yooyu kenn xamulu limu mu ne loola nag waroon nañ koo tegee boor su ko defee ñu jublu ci liy jëmale réew mi kanam. Mister Ba continué di xamle ne amul kenn ki nga xamante ne da nga gën a nekk juddub réew mi ci beneen Gambien fii ci biir réew mi muy xamle nag nguur gi seeni bopp ñoo waroon a jiitu ci mbir moomu su ko defee ñu daal di ko dàqalu ndaxte nguur gi seeni bopp nag loolu lañ leen sas mooy pour ñu fexe ba gis ne dañuy aar Gambien si nekk ci biir réew mi. Ahmadiyya nag mu nga sosu ci atum 1989 foofale ci bili di Akkadian nekk ci réewu India laata ñoo tox nag dem foofa ca Pakistan ci atum 1947. seen màkkaan bi nag mu nga ci réewu England ci seen capital bi di London Seydou Camara Star TV News. su ko defee ñu dem seeti jiwaat beneen rek ndax alaaji Kaañi mi nga xam ne dalaloon nañ ko si TRRC bi te mu nekkoon soldaar si jamono yi Yaya Jammeh mu nekk tamit juróom-benn soldat bi nga xam ne feeñal nañ ko si atte bi nga xam ne ñu ngi koy def ah, Yankuba Touré Yankuba Touré nag moom former juntam member la ah, moom nag ñu ngi ko tuumal si li jëm ci génnum àdduna Ousmane Koro Cissé Ousmane moom moo nekkoon. former finance minister maanaam jëriñ bi dénkoon koppar gi ak koom-koom bi ci réew Gambia kooku nag bañ ko reyee daal ay mbiram boobu léegi ñu ko doon coow waaye alaaji kaa ñi wane na ne daal nekkul moom dong ko rey ñoom yëpp ñoo bokk daal koy dóor ba kooku nag ba mu génnee àddina kàddu yi mu ngi euh, euh, code bi ginnaaw bi nga xam ne nag ko fa feeñaloon Seynabou Jasseh moo fa nekkoon Star TV ñu ànd moom ci xibaar Kandji nag mu ngi amal kàddu yooyu niki démba gannaaw bi nga xamante ne nag mu ngi tontu laaj bi nga xam ne kii di Defence si Sissoko moo ko laaj ah, ci cross examination maanaam jàkkaarloo bi mu doon am ak Justice Jayte foofa ca Banjul High Court yi nag wax na néegu attekaay bi ne ñoom ñëpp ñoo dóor kii di Ceesay sebem mu dee foofu ca kër këri ba tuure waaye nag moom mënut a fàttaliku kan ci ñoom moo ko jekkali ba tey it wax na ne Touré nag mu ngi woon ci place booba jamono yooyu nga xam ne kii di Edward mu ngi leen doon waxal moom ci boppam Tamba Gomes ak jaata ci li ñu war a def waaye kii di Kandji weddi na ne jamono yooye moom dafa màndi woon Kandji nag seede na ne Cissé buñ ko njëkk dóor dafa daanu gannaaw loolu nag ñoom ñëpp ñoo ko tiim di ko dóor bam ñàkk bakkanam bu Jasseh Star TV News mbokk yi ñu sant ak gërëm Seynabou Diassé si mujjantali xibaar boobu ci réew mi rek ñu àddu dem seeti ji xibaaru biti réew yi fañ koy tàmbalee nag mooy ci réewu Algérie fi nga xam ne jamono ji seen ministry of health maanaam jërëm bi dénk wàllum faj mi wane na ne daal ñoom gis nañ kees bu njëkk nag ci jàngoro corona bi foofu la seen i réew nag foofu la sa North African country bi mooy réew li di Algeria health minister bi nag moom kii di Abdelrahman Ben Bouzid moom nag wane na ne ne kooku nag nga xam ne nag jàngoro corona bi nag dal na ko mu ngi bàyyeekoo foofu la sa Italie si fukki fan ak juróom-ñaari ci weeru février ba mu ñëwee nag ñu ne si saa si bañ xamee ne jàngoro bi daf ko dal daal dañ ko jël daal di koy làq fee nag ñu bàyyi ko foofu pour ñu mun a seetu ay mbiram Algérie ne boo seetloo di gis ñu ñoo nekk ñaari réew boo xam ne am nañ jàngoro corona bi fële ca tundu Afrique ginnaaw ñii di Égypte li kooku na mu amee feebar boobu ba léegi nag xamaguñ ko waaye daal xam ne ne ministre bi ci boppam daal maanaam jëriñ bi ñu ngi dalal xelu waa Algérie di leen wan ne daal feebar bi daal kenn rek moo ko amagum te kooku ci boppam daal ko jël làq ko daal ay mbiram ñu ngi koy seetu bu baax a baax te gën a dëgëral tamit seen i taxawaay si seen i euh, frontières yi rawatina tamit si seen i aéroport bi maanaam si aéroport bi pour wane ne daal loolu daal du law si li nga xam ne nag moom mooy seen i dëkk bi coronavirus bi mbokk yi xam ngeen ne mu ngi tàmbale foofu la sa China si dëkk bu ñëw ci weeru décembre atum 2019 foofu nag ñu ne lu toll si juróom-ñaari fukki junne ak juróom-ñaari eh, nit ñoom ñoo amoon jàngoro bi waaye nag ci loolu lu toll si ñaari junne juróom-benn ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan eh, si kuréel nga xam ne nag eh, mu ngi tudd WHO si kàddi nga xam nag wax nañ ko waaye nag tamit ba mu tàmbalee maanaam jàngoro corona bi ba mu tàmbalee lu toll si fanweeri dëkk ñoom ñoo ko daal di am China nag ci la bokk waaye tamit nag ci ko loolu lu toll si ñaari junne juróomi téeméer ci ay nit ñoom ñoo ñàkk seen bakkan si réew yi nga ne sax bokkuñ China ñoo xam ne jot nañoo amagum nag jàngoro booba na nag wane ne daal ba bañ ko amee ba léegi dafa mel ni jàngoro bi law na jamono ji mu ngi dem ci dëkk ak ji fii ci tundu Afrique it àgg na fa am na ñaar dëkk yi nga xam ne am nañ ko mooy Égypte ak ñi di Algérie suñ ko bàyyeekoo ñu dem seeti ji Burundi si waatee élection si nga xam ne nag ngi si ñoom itamit da seen élection si ñu ngi ko jàppal weeru mai atum 2020 wane na ne daal opposition bi nag ñu ngi jàpp gaay di leen rey benn benn nag ah, ci foofu la ca Burundi ah, police yi nag ci talaata bi wane ne dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne daal ñooñu ay doomu lañ moo tax daal lu toll si ñaar fukk ak ñaar si ñoom ah, dañoo rey gaay nag ci boori capital bi nag di Bujumbura tuumal nañ nag euh, benn groupe ne ñoom dañoo bëgg a euh, bundu xatal nit ñi foofu la ci jamono bi nga xam ne ñu ngi waajal lii di si am na benn jàngalekat koo xam ne moom moo woon groupe bi euh, yi ñu ngi ko doon def tamit wane ne na si opposition bi mooy National Council for Liberty ñooñu nag dañoo condamné maanaam dañoo ñaawlu Eh, eh, police yi nag jëf bi nga xam ne nag def nañ ko di téye political party leaders yi di leen jàpp benn benn eh, di leen rey wala boog di leen tëj nag ci ay kaso nag foofu la sa Burundi lu toll si ñaar fukki nit ak ñetta ñoom lañ jot a jàppagum police yi ñoo leen jàpp waaye waaye nag si ñooñu lu si ñaar fukki nit ak ñaar ñoom lañ jot a reegum am na kenn koo xam ne sax ñu ne moom moo jiite benn political party boo xam ne ndaw yi rek ñoom ñoo si daal di bokk Associated Press mooy benn buntu tasu xibaar bu nekk foofu sa bitim réew wane ne toll si fukki nit ak ñaar si dimanche bi rek ñoom lañ daal uh, rey police yi nag wane ne ne ñi yëpp dañ doon yëngu ci wàllum dëmm moo tax daal ñu jàpp gaay nag daal leen di rey ndi foofu la cali di uh, Burundi ci waajtaay bi nga ne nag ñu ngi koy def seen élection uh, ci weeru mai mbokk yi suñu mujjanteeli xibaar daal dinañ dem seeti ji docteur yi nekk foofu la sali di South Africa ñoom nag wane ne ne dafa amoon jigéen yi nga xam ne dañ leen tëddaloon si lopitaan yi jigéen ñoo xam ne Euh, dañoo xawoon a dofloo gars yi nag ci wax yi nga xam ne nag ñu ko doon wax gars yi bañ feebaree parce que dañ wax gars yi ne bu ñu amee jàngoro euh, euh, sida bi nag dafay mel ni ñoom mënatuñoo am doom waaye tamit bu ñu demee ba ëmb daal te fekk ñu ngi am jàngoro bi loolu nag mën na rey gars yi nag foofu la ci lopitaan yooyu te am na jigéen yoo xam ne nag xalaatu yooyu taxoon na ñàkk nañ seen i am na ñoo xam ne nag wax yooyu dafa xawoon a dofloo gars yi comme ni ko docteur yi nag wéralee si waxtaan yi nga xam ne seq nañ ko ak taskati xibaar yi wane ne ne am na docteur yu bari nga xam ne bañ tëddalee jigéen yooyu nag ci lopitaan yi nag wax façon wax yoo leen dee wax waxloo gaay ba ñooñu da leen dee xaw a dofloo parce que xalaat la leen dee jox nag ah, ñooñu jigéen yooyu am na jigéen yu bari nag dañoo dem ñoo xam ba ëmb waaye nag bañ ëmbee dañ na ñoo xam ne sax dañoo dem ba si biir sax daal di jël ab ah, lettre ah, xam ne dañ si binda seen pour wane daal ñoo mënatuñoo am doom ngir nag dañoo am jàngoro boobu te buñ demee ba am doom it ñoom ak seen doom yëpp dañoo daal daanaka bu dee téeméer la si jigéen lu toll si juróom ñeent fukk ak juróom nag si ñoom nag ñoom ñoo daal amoon jàngoor bi waaye tamit ñoom ko àggee woon eh, ko sosoon ko waral waaye mu nekkoon sunu mujjënd jottali xibaar daal di jaajëfal moom kii di Samsiding Mandial mi nga xam ne moom moo nekk wane xibaar bi Omar Tunkara maa ko àggee Paul Steven Pereira moo teewal xibaar yi Mr Mohamed Bah moo nekkoon ci machine bi jërë ngeen jëf